فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل asalaamualeykum mbokk jullit yi mbokku taalibe yi waa Ngaynde ak lu ko wër ñoo am mbégte di leen fàttali seen gàmmu annuel ren ñu jàpp ko aljuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet atum 2023 ca Ngaynde ci ndigalu xalifa général de Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour bés bi ñu nar ci fàttaliku Adja Faalo Xoll nekkoon directrice de l'urbanisme et de l'architecture amoon taxawaay bu mag ci gàmm gi waaye bës bi ñu dara jàllee ko la sous-préfet de Raw ak Mamadou Alpha Diop maire de la commune de Gandon programme bi bu nu xëyee ci suba si daanu amal kaaminu alquran ñaanal ñi nu jiitu bu 16h jotee ñu tàmbali cérémonie officielle bi bu 22h jotee jëm fajar ñu nar a fanaane gàmmu bàkk Seyduna Muhammad ci teewaayu du kenn mbay ak waa kër mbay doonde mbay vendredi 21 juillet 2023 ñu ngi ci woo village yi wër arrondissement bu raw ñu ngi ci sàkku teewaayu jullit yëpp عجل عجل عجل عجل عجل عجل عجل عجل عجل عجل عجل عجل عجل عجل